gaz amul su dee am na de doon na lu jafe gis ndaxte ñeenti fan a ngi nii tey détaillants yi mënuñu ci jot. waaw ah, fii depuis gaz bi xaw manqué nag moom ne boo xool depuis le ba léegi amuñu amuñu gaz gaz 6 kilo bi gaz 9 kilo bi ak gaz 3 kilo bi ba si gaz cuisinier dafa manqué encore. mère de famille bi ñu fekk foofee ca Parcelles Assainies unité 19 moo ngi xam ne ni rek li ni mel nekk na situation bu metti lool waaye pexe amut. maa ngi koy dund moom parce que maa ngi yor sama kër maa ngi yor sama njaboot gis nga sama toogaay bi maa ngi yor sama njaboot waaw nañ dolli sutura rek yàlla yàlla nañu yàlla dolli sutura lool laa ci wax waaw sutura daal a jërë lan moo mën a waral. pénurie bile nekk ab laaj bi nga xamante ni bile gérant du dépôt de gaz àdduna ci. gaz en tant que le butane am na parce que nit ñu bëri dañu yaakaar ne gaz daa manqué Sénégal mais gaz manqué wul nous sommes confrontés à un problème de livraison livraison moom moo amul euh, li waral aussi ñu am problème mu livraison boobu mooy société yi ku ci nekk amoo droit sol sa bouteille lu moromam. ku ci nekk sa butéel nga war a sol léegi nag dans le marché comme dañu jël butéel yëpp mooy les charretiers bu ñu demee sur le terrain jaayi point de vente yi dañu ramasser butéel yëpp indi ko bu ñu ko indee camion bi bu ñëw ñu jox ko ko une fois à l'usine dañu trier butéel yi nga xam ne moom lañ war a moom lañ moom ñu sol ko yi nga xam ne moom moomuñ ko ñu jël ko dem échanger ci ak société bi nga xam ne moom moo ko moom mais maintenant problème échange boobu moom moo indi problème bi yëpp. ak lépp lu ko mënti waral itamit ñoom muy père de famille. détaillant ak grossiste ñu ngi ñaan nguur gi mu def ci li war ba rek bi dellu siwaat comme ni mu meloon